kon tey CRD bi da def nañ ko sant chef de service yëpp ak suñu fi jël kàddu yëpp si amande yi ko defee mooy amande yi gën a rafet si amande yi di ñaan yàlla rek ñu yegg noonu si màggal gi lépp loo xam ne séntu woon nañ si liggéey ñu mottali ko kon dégg nañ li ngeen wax si wàllu matériel parce que dégg nañ nat bu baax pour DMTA cinquante bâche pour ministère de l'intérieur moo bâche bi ministère de l'intérieur moo koy joxee

pour mën a assurer sécurité bi di ngeen demandé si barrière tamit cinquante barrières je pense que am na Touba diggante police ak gendarmerie dina ko indi incha allah di des moom mooy protocole bi ni ñu koy gérer surtout ormal bi ñu war a ormal kilifa yëpp respect bi ñu leen war a jox parce que loolu tamit euh, waa police dañu si ànd ak yéen liggéey si seen zone police wala gendarmerie si zone gendarmerie pour que loolu ñu war a def ñu def ko ba mat sëkk si wàllu santé déglu nañ effectivement trois postes 13 postes médicaux avancés je pense que engagé wu nañ si def ko ñaari ambulance xam naa yu jóge si district yi ambulance médicalisée bu hôpital Matlaboul Fawzeyni wala ko ambulance pour pompier yi je pense que loolu yëpp lu xaj la si liggéey bi et dinañ ko def incha allah dinañ si ànd ñaari équipe bu Croix-Rouge yi xam ne war nañ leen mobiliser tamit boo leen service d'hygiène ñoom it dañ indi ay groupe ñaari groupe ni ñu ko waxee euh, capitaine bi waxee sànq tamit dana mobiliser ñi xam ne service d'hygiène lañ yëpp nekk si région de Diourbel maanaam pas seulement département de Mbacké mais département Bambey ak département Diourbel yëpp dinañ ñëw appuyer département Mbacké ni mu ko waxee sànq rek ñaar jàppale leen si yëfatu couleur yi Cayenne moom ak Mousso beeg Mbacké Mbacké moom boo leen laaj moom xam naa loolu moom du yomb mais am nañ si yaakaar daal ngeen jàppale leen ah si yëfatu yi donc euh, nous avons également comme nous avons produit rek produit 80 litres de produit 250 litres gasoil pour nous mën à partir du 6 juin comme nous wax 10 jours avant si wàllu hydraulique donc avons avons 10 citernes et 10 bâches souples Nous avons fait 5 citernes et ay bâche souples Nous avons fait rek ñaata bâche souple femme. ngeen complété ko ba mat 10 ah, seetaan yi tamit ah 10 am na fa très bien donc xanaa di demander offre mu appuyer leen si citerne yi pour nga mën a dem complé euh, complété 5 yi ba mu nekk 10 waaw maaw tamit dégg nañ ko deux citernes yi xam ne dinañ ko joxe donc au moins 7 citernes donc disponible la ñu fexe peut être nu ñu ko yokkee ba mu nekk 12 yi xam ne moom la ñuy xaar. wàllu commune donc ñu ngi leen xaal si wàllu assainissement bi ngeen suppléer ONAS. si wàllu surtout euh, poste yi ñu war a ngacc parce que moom amul vidange yi cent vingt voyages yi suñu ko defee je pense complété ah suppléé li ONAS waroon dem mais ni ngeen ko waxee tamit <coughs> ñu ngi jëm si biir nawet <coughs> mun na taw mun na bañ a taw mais nag jamono boo xam ne mun nañ si yaakaar taw biir juin quand même mun nañ si yaakaar taw donc ñu war a jël ay dispositions pour mën a sëkk mu ne wut am na ay hydrocureur yoo xam ne ñu mën a gaaw manque ndox mi balaa muy kii donc ñu ngi fonkaan si li waa commune jël ay disposition ak euh, xalif bi ak porte parole pour que ñu mën a jublu si wàllu assainissement bi si wàllu nawet yi comme léegi màggal yi si màggal gu mag gi sax si biir nawet la naroo doon entretien réseau bi tamit dégg nañ li ngeen si wax ngeen war si ànd ak Sénélec pour mën ko def parce que comme léegi éclairage public bi Sénélec moo jébbal na ko communes yi muy seen compétence tamit ah donc ñu ngi leen si xaar si ngeen jàpp si mais Senelec accompagner leen si tamit ni mu si waree donc si Senelec ñu ngi xaar mise hors de l'estage Touba si boppam mais te ñu def branchement provisoire yi xam ne war nañ ko def pour lieu cérémonie yi wax nañ leen ko sànq ñaar si kër gi ñaar si kër gi kër sëñ daan également kër sëñ am sa ak keneen koo xam ne laaj na ko tamit ngeen jàpp si ñu ngi fay pour nous faire des branchements provisoires. Mais <coughs> nous avons une extension du réseau sur le fonds préférentiel. Surtout pour le Touba là, une extension. nous avons une 150 ampoules de recharge, 20 sodium, 20 candélabres appliqués. Hmm. Donc, vérification éclairage public sur résidence. C'est vrai que la résidence, il y a un pour nous vérifier état installation yi groupe électrogène te bu leen koy fàtte kon ni ma wax rek mbirum courant la mun nga am difficulté au dernier moment samay groupe électrogène mu mun la may nga def face entretien réseau électrique bu Touba Belel bi tamit bu leen allah wàllu eaux et forêt 300 stères comme demande bi dem na ba pare am yaakaar dañ ko mën a génne avant temps yi moom lañ daan def je pense que bu yoon tam noonu lay demee comme tel lañ def ma demande bi nañ ko suivre en tout cas bu ñu tel ñu ko génné wa Sonatel wifi 10 méga bi ñu koy xaar donc mais également wifi ci kër suñu am sata jël ngeen see engagement ñu ngi leen ci sante bu baax leen ñaanal yalla ngeen concrétiser ko jël nañ note pour wa douane donc tolérance bi ñu wara def ci yoon wi li nga si souligné léegi tamit comme problème particulier tamit lañ ko examiner ak colonel bi ak ses ay responsable douane yi incha allah voilà environnement bi moy appui en matériel nettoyage bi je pense que euh, wa UCG ñoy intervenir à la matière de ngeen tamit engagement yi si def incha ñoom tamit dinañ ko mat léegi mu noonu tamit commerce ak wàllu élevage vraiment euh, contrôle denrée yi contrôle abattage dinañ ko def bu nekk lu mel élevage dina veiller si prix pour que ñu respecter ko fexe tamit ba mu am approvisionnement bu normal mais surtout vraiment li ñuy habitude di ko def bo ba légui dina wàññi tamit xaj yi taxawaale si biir dëkk bi euh, di def yoo xam ne tamit euh, méngoowut ak euh, sellaay bi xam ne moom la dëkk bi laaj donc boo leen appuyer donc opération éliminer chien errant yëpp parce que produit la soxla ak carburant ay ay manœuvre ak oto pour ramasser xam ne moo nar a ramassé xaj yi dee yi donc boo leen si appuyer rek incha allah dañu mën a def opération yi te leen ko waxee rek ngeen lëkkaloo jox nañ leen numéro téléphone bureau bi ak yeneen personnalité yi xam ne war ngeen lëkkaloo ak ngeen lëkkaloo ak commune bi pour mën a xool naka ngeen mën a opération bi programmé ko mën koo doxal balaa màggal gi di yegg si nga xam ne biir màggal gu mag gi dootuñu mën a def opération bu noonu parce que day fekk ñu nekk si digg nawet bu nekk si biir nawet kenn dootu mën a opération donc léegi lañ mën a profité gis opération bi nga xam ne mooy woy bu màggal gi yegg si am na yeneen attaque bon sûrement bande moo formé wu amoon na fi quelques années il y a quelques woon nañ ko je pense que ñëpp gisoon nañ si résultat noonu tamit lañ koy réglé waatee bi yoon rek li muy laaj mooy toppaat leen ba démanteler bande bi parce que tant que demoo ba démanteler bande bi doo doo mën a nekk en sécurité totalement day dal fii nga renforcer sécurité foofu ñu bàyyi ko dem dali feneen donc dinañ dox mbirum police la su ma waxee police mooy enquêteur yëpp investigateur yëpp muy police ak gendarmerie yëpp ñoom ñu activité investigation bi ñu def nañ ko boolee lëkkaloo ba xam ne dinañ mën a neutraliser bande boobu terewul nag ni ñu defoon ak yële tamit si Touba nañ ko gën a renforcer également boo xam ne def dis ko daal sëñ bi ñu ngi la gërëm bu baax loolu moo nekkoon ni xam ne mën nañ ko tënkee si réunion bi